Selama Assalamualaikum semambaki APRC Alliance for Patriotic Reorientation and Construction Manipur Jakalirat Kaitinya lagi stisuf Kait gunjakagi My one memorandum of understanding bi nga xam ne waroon nañ ko signé Ministry of Works and Construction pour Chinese yi Chinese company bu ñoo wax China habo Engineering, Company Limited pour ñu defar bridge bi diggante bandul ak pour ñu defal tamit comme Coastal Road bi président Jammeh waxoon ne dina ko def dual carriageway ñaareelu kërij bi ci ron boobu mooy leetar bi nga xam ne Chinese wala China Harbour Engineering Company Limited Bindoningko Ministry of Works and Construction. Maling ko bindon sah. diwanas and intere ninyong paraning pur di malinyo pur nyo def banjur digante banjur agbara Punyudaf def a bridge Rasidol di tamit ñu ne am nañ intérêt tamit pour Combo Costa Road bi président Jammeh waxoon ne dañ koo def dual carriage way ñetteeli kayit ba ca waxoon naa leen ne ca Kiang West sankan di dem ba président Jammeh ak parti politique bu APRC dooral nañ liggéey bi phase one Emi Kharafi ñoo ko defoon fii la road la woon yoon wu gudd su ko defee ñu ne second phase bi boobu dañ ko waroon a def asphalte ñu gën koo xamee godorong waaye yàlla àtte nguur gi ceeñ waaye ñoom ñu ne dinañ ko continuer kon ba tey dërëm bi génnul gaal gi waaye soo leen seetee kayit yi mooy bi ci kaw bi ci topp ak ba ca mujjee boobu di yooni sankandi dem ba કે evidence banggok nguri APRC ah yang kami library bila dafnai filobari lui jarin dewi Gambia modal mane, project top project buñ def ñun Gambien si yëpp ñoo ko bokka ñoo ko moom ñoo ci jëriñoo moo tax ma ne nañ leen jiital mi njëkk xol li bokk ñu liggéey suñu réew ndax mu dem kanam loolu yéen def seen xarit la honorable Bala Gàppa ñu gën koo xame di action man Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. suba Party Alliance for Patriotic Reorientation and Construction APRC alaikum, réewi Gambia pour continuer keene gi APRC am pour réew mi ñun ñëpp ñu jëriñoo pour continuer Gambia Post Authority yokkoon nañ ko ba pare biir afdaay waxtaana waa afdaay yi ñi bugg a jaay seen kër yi ñu jaay ko pot pot jënda ko daaneel kër yi yokka ko waaye ba tey His Excellency President Yahya Jammeh Babili Manta mu ne ba tey port bi war nañ ko gën a yokk parce que gaal yi ñoo ñu ngi bari conteneur yaa ngi gën bari su loolu weesoo tamit His Excellency President Yahya Jammeh Babili Manta ak parti politique bu APRC ñu ne suñ gagné élection dañuy def modern station pour Gamtel defar len bu bees tàqa boo xam ne ku ko gis di nga Gamtel la su loolu weetew tamit affaire food security projet boobu dinañ ko gën a dooleel dinañ ko gën a strengthen ndax muy óor parce que lëfi lekk foog nit bàyyi ci xel su loolu weesoo mu ne Kombo Coastal Road gis ngeen ni mel waaye mu ne dafa bëgg ñu def ko dual carriage way dual carriage way mu mel ni danga ko xar ñaar ñii ci boor bi ñii ci boor bële dual carriage way ah jama jiranka moo yaa xol mu ne Banjul nag ba sooma tamit daf ko bugg a def duwal kaar yeej wee tamit dañ koy xaaj ci digga ñaari tali ci benn boor bi beneen boor bi tamit ñaari tali Banjul ba sooma loolu de Gambia dina avancer mu ne batil haadin highway tamit mooy fa traffic light bi nekk dem be kaatong boobu tamit dual carriage way ñu xaaj ko ci digga benn side bi am ñaari tali beneen side bi am ñaari tali traffic light be kaatong su loolu amoon na yéene ne Kiang West Sankandi be Keneba boobu dooroon nañ ko phase one la woon fii da road la woon Aimé ñoo ko defaroon waaye dañ amoon yéene ne second phase bi nañ ko def asphalte ñu gën koo xamee godorong moo tax su APRC gañe incha allah amin yaarab yi second phase bi ñu waxoon bugga nañ koo def asphalte def ko godorong jërëjën jëf man la seen xarit honorable Bala Gaba Jaxumpa ñi naan ko di action man bismillahirrahmanirrahim asalaamaaleykum suma mbokki APRC Alliance for Patriotic Reorientation and Construction asalaamaaleykum Rewi Gambia Nun parti politik bu APRC ñoo bëgg a Rewi Gambia di leen wan ne fi mu nekk wateef la egg na ca ndong la dik AIC wax nañ seen registration date ñu ne dinañ commencé mai 29 ba 11 juillet campagne bi tamit soree tut moo tax ñun waa APRC bugg a waxtaan ak réewi Gambia ne parti politique bu APRC am nañ projet yu bees yu tàq yoo xam ne buga nañ ko indi Gambia pour Gambian si yëpp jëriñoo ci benn ci boobu musuta am Gambia bu mooy lan ñun wa APRC buga nañ fee sampa railway system railway system bi nag ñetti xaaj lañ ko bu def te dañ ko bugal liggéey ndànka ndànka ba mu jeex tàkk benn xaaj bi mooy train bi wala otoraay bi dina jóge Banjul ba biir benn ngoog ñaareel ba dina jóge Birkama dem ba Soma ñaareel ba ngoog bi dina jóge Soma dem ba Basse noon lañ ko bugg a liggéeyee ndànka ndànka ba mu jeex tàkk am na réew yoo xam ne suñ xarit lañ dinañ ñu dimbale bañ samp ko ci biir Gambia Gambian yi yëpp jëriñoo ci am na beneen boo xam ne tamit ah boobu tam bu bees la boobu mooy lan his excellency president Yahya Jammeh Babili Manta waxoon na ne dafa bugga yeneen ñaari general hospital yuñ champa mu ne benn bi nañ ko def west coast parce que west coast region dafa yaatu am nañ Suleiman Junkung hospital bu yam waaye bugga na beneen ñu def ko West Coast ñu amaat beneen general hospital ñaareel ba mu ne nañu Basse dafa sori Basse tamit war nañoo am Basse general hospital waaye mu ne hospital bu nekk bugga mu am 1111 bets ma bantu waat ko mu ne hospital bu nekk muy biy nekk West Coast ak bay nekk base bu gën mu am 1111 bets moom xol bi dafa yaa moom rek moo xam lu tax mu wax loolu su loolu weesoo am na leneen loo xam ne lu bees lay nekk mooy président Jammeh waxoon na ne réewi Gambia war na am ñaari airport parce que benn airport óorul yàlla tere tereti ko su benn airport bi am nii su fa dara jote kon ñu ci jafe-jafe mu joxoon ma ndigal ma waxtaan ak managing director GCAA Abdoulaye Bojang pour ñu identify area boo xam ne is not populated amut ay nit su ko defee plaine boo xam ne yàlla tere traité ko di ko dee gis télévision bu am crash landing wala emergency landing dugga ci biir nit ñi daaneel néegi ñi sax mun nañ cee fàttu yal na ñu ci yàlla musal moo tax mun nañu identify area boo xam ne is not populated loolu waxtaanoon naa ko ak GCAA managing director Abdoulaye Bojang kon nag loolu tam lu wees la pour Gambie am ñaari airport beneen bu bees tamit mu ne réewi Gambia day moom benn siti rek lañ am muy Banjul bugga nañu tabax e new city new city boobu nag yàlla xam fan lañ koo sampa xëj na sooma laa nekka xëj na base laa nekka xëj na farafeñe laa nekka waaye war nañoo am ñaareelu city benn rek lañ am muy Banjul war nañoo am ñaar su ci yàlla ànde su loolu weeso am na leneen loo xam ne dañ ko bugga indi fii ci Gambia dekkali ko muy def bridge Banjul Baara amoon na jamono mu ne loolu du priorité parce que jamono jooju féeri yaa ngi baax ñoom kani lay ñoom joxe waaye fi mu nekk nii ñun APRC ñu ne jot na pour defal bridge diggante Banjul ak Barra ndig fi mu nekk oratul bu yàggul gis ngeen féeri bi ci digg géej gi mu am fa accident dañ ko mujjee takk indi léegi léegi feeri bi sax pour coste beneen problème la nekk loolu yépp óorul pour dimbale nag ñuy war a jaala di liggéey si ak suñ jigéen ñi ñëw di jaay seen bagage yi pour duñal seen njaboot delluwaat bara moo tax ñu ne jot na nag ñun APRC suñ gañee incha allah amin yaara bi dinañ defar bridge diggante baara banjul ba baara pour saafaraal problème boobu beneen boo xam ne tamit bu bees la mooy ñun APRC dañ foog ne fi mu nekk Gambia war na am counseling center nga xam ne dinañ am staff yoo xam ne dañ leen a train professionals nga xam ne ñi dee diport ñuy jógee Germany ñu jóge America ñuy jógee Scandinavia soo wàccee airport rek straight ñu yóbbula la ci counseling center bi ñooñu fekk ay professionnel lañ ñuy naxante yow di la waxtaanal di riid sa mayin di def ndànk-ndànk ak yow at least for one month bala nga dugga ci dëkk bi ñun APRC yi defe nañ ne loolu dina wàññi ñi nga xam ne dañ leen ñuy ñëw di jël jaasi di rendi seen kilifa yi walla ñuy dugg ci affaire yi crime wala ci affaire yi drogue ñun APRC ñu ne Gambia fi mu nekk war naa am a counseling center pour déportees yi su loolu weesoo réewi Gambia ñu ngi di leen sant ñun waa APRC am na beneen boo xam boobu moom free education for girls la dinañ ko fi indi waaye dina passé loolu parce que président Jammeh dafa waxoon ne 2019 dina ko doon def free education up to university level kenn du fay bu rëy jàmme jilanka xol bi moo yaa moo tax ñun APRC suñ ene dinañ ko def free education up to university level su ci ande àndee waa Gambia lii rek war na leen a wan ne mbiri élection du caaxaan du waxi kese liggéey réew tamit du yëfi caaxaan nii laa mel nii laa mel Youssou Ndour na defal ñu gis man la seen xarit honorable Bala Gabo Jaxumpa ñu naan ko Action Man Assalamualaikum.